الحبس والسفر yaara fii ñëw ki nga xam ne adduna rek ko fi indi ak ki nga xam ne àllaaxira ko fi indi nee na ku ci ne nag lañ fa bëgg mënal naa la ko te dinaa ko defal ki ma jaaxal daal ki nga xam ni man yàlla def neexu kon loolu nañ xam Serigne Touba loolooy mbiram bindoon na wax ne anna man waasala nii li xaradin dun yawini fa innahu yakunu min al muqarrabin كيف كو خاني ne ñëw nga ci man te رك rek tax nga xam dara yi àdduna yëkkatiwu la suñu borom daan la boole ci ñeeku gëri jege képp ko xane ñëw nga ci man nak te aduna tax la juk fa inna allaha yukrimuhu ma maadaama hayyan kon nak Serigne Touba moy waxon na ne amarani rabbi bi an usarriha bi anni malasun wa masoon wa himan faman arada al khayra fi kilta yi daarani fajalus bi suñ borom moom digal xamal ma ne ma waxal mbindee fi ne leen ab wéeruwaay laa ab rookaay laa képp koo xam ne bëgg nga muccug àdduna ak àllaaxira ñëwal wéeru ci man kon nag loolu mooy la fi indi ñëpp kon nag président sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu jiitelee kàddu yooyu yi mi ngi yeesalaat di la dalal jàmm ci dëkk bi di la eh, sant la yàlla lam la waxoon ne la boo duggee ci dëkk bi nañ ci fas yéene ca sa yoon wu jëkk wa loolu rek lay fetliwaat santale yàlla sa boroom ak santale ko Sëriñ Tuubaa ndax nee na sa digg moom day loo xam ne suñ boroom moo ko dogal ndax yàlla lépp lu am rek moo ko bi moo ko dogal ci ësal yàlla ci kàttanam nag moo dogal dajale leen jamono ndax nee bi leen yàlla boolee jiitu na muy tooge ci jataay bii yow itam booba ko njiitu réew mi waaye nee na bam la xamee ba tey mu xam la ci yar xam la ci teggin xam la ci ak baax xam la ci ci fonk ko it di ko teral ngi jëm Sëriñ Tuubaa nee na loolee nag yàlla da ko def sa digg moom do def ak cofeel ci sa digg moom cofeel goo xam ne xam na fu muy tàmbale waaye xamul fu mu yem ba yàlla def nag yaakaar jooju nga amoon ci moom bi mu demee ba tooge jotaayu Sëriñ Tuubaa yaakaar ji gën a dolli ko nee na loolu nag moom bi fi ay kilifaam nekkee noonu la ko yàlla bi ne suñu def sëñuta te bàyyi lépp dafa tënkoon ci seen kilifteef bi mu demee ba ne fi nag wóotu leen fi di fi jëmbi Sëriñ Tuubaa laa war nag yaakaar jooju nga am ci moom moom léppam Sëriñ Tuubaa la moo taxoon nam la ko waxe woon mu jor sa mbir dénk ko Sëriñ Tuubaa ñee nag fi mu nii la ko jëkke dafa teewlu woon sëriñ bi rek waaye léegi nag tàmbali na di la ñaanal ñaan gi mooy nga am ndam ci liggéey bi ba mboolem li nga xam ne yéene nga ko ci Sénégal nee na nga am ko ni nga ko bëgg ni ko sa njort ci biir loolu itam nee na yéene jëm la yéene lépp loo xam ne gis nga mu digal la ko rek lam ci jublu mooy nga am muccuk àdduna ak muccuk àllaaxira ndax moom kat yàlla def na amul benn bëgg-bëgg ci àdduna lu mooy liggéeyal sëñ Tuubaa kon yow nag ndegam yàlla dalaa booleeg moom nga am tawféex jooju ci moom nee na lu mu la digal rek loolu la ci jublu kon nag nee na mi ngi yee ak cant ak ngërëm sa digg ak moom ndax xam na ne li la war ci dëkk bi yaa ngi ci def ba def ci loo mënut firnde yi bari na am nga yow ci junj waaye li ci tudd moo ko ndax ci wàllu wér-gi-yaram rek boo ci ñëwee hôpital Modou Lo Fousseyni be ñoo ngi cee def batiment bu mag boo xam ne mën na set milliards te ñi ko yor wax nañ ne mën naa am màggalu déwén mu àgg te boo ko teg hôpital bi mu fi sumboon loolu nag fànn yu bari def nga ko ci loolu lépp nag nee na boo koy def ci dëkk bi dàkk ak bëggam ak dàkk bëggu Serigne moo tax nga di ko def kon nag nee na moom mi fi nekkee Serigne Touba nag te lépp loo defee njëbaru Serigne Touba gi cant gi ak ngërëm la nee na moom la war. kon nag ñaan mi ngi lay sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee mu yem kon nag da ñaanal ci yàlla ci barke suñu Tuubaa mboolem somb boo xam ne am nga ko ci rek yàlla suñu borom kàttanal la defal la ndimbal defal la tawféex ba nga bañ ci am benn gàllankoor wax na la ko léegi neen la saa soo xëyee ndam yi du yokk kon nag nee na rek moo doon kàddu yi di la sant di la gërëm bu baax di jeexalit ci wàllu màggal gi itam. da ngaa joxoon ndigal ministre de l'intérieur mu di ko taxaw moom itam ci sa ndigal def na ci lim man ak lim def na ci li man ak limarut loolu lépp itam lu ci ne leeral naa ko sëriñ bi ba lépp xam na ko nee na taxawaay yi ci def yëpp itam ñu ne ci sant bu baax di la ci gërëm di na ñaan li sëriñ Tuubaa daali woon ci liggéeyal ko dal yàlla nga tàbbi ci biir te mooy waq di xawaa ijal la si na daamoo fii xidmati waxab la xam maaraamu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلاة الذي في كل زار وفي سفر على ما هم مع والسفر